tiit ak njàkkare la sénégalais yi bëri dëkkee jamono jii agression yi mel ni tulleeg male si gox yi bëri fii ci ndakaaru sàcc rey wala sax nangu li nga yor loolu nag daldi na tiital ñu bëri ñi nga xamante ni nii tàllal nañ leen suñuy mikro dafa doy waax léegi fu mu toll nii boo guddee wàcc sax dangay tiit dootoo ñemeti da ngay ragal tellement que da ngay def lu tout pour nga teel a wàcc dugg bëccëg bi sax. dañuy agressé. ñoom du ñu hésité parce que ñu koy def du ñu lucide en général boo ñu koy def du ñu ànd ak seen i sago dañuy màndi ñii dañuy tux seen affaire ba kii nga xamante ne dañuy ñëw forcé la jël li nga yor boo bañee ñu ñu gaañ la jam la moo tax jamono ji ñu toll nii fii ku nekk na nga jël sama tuwaay. Mamadou Latir doon ndaw jóge ci ay jàng gannaaw bi mu yegsee ci buntu këram lañ ko daal di songu gaañ ko nangu téléphone am daal di yóbbu. ay booy groupe bu booy daanaka ëpp nañ huit personnes songu ma. yóbbu nañ téléphone bi yóbbu nañ saag bi si sama genou bi daal xoosu na ndax daf ma ci dóor jaasi waaw ndax biñ ma waaw biñ ma songee nag dama dama riposté waaw j'étais habillé en costume xam naa costume beeg saag bi moo tax gars yi yaakaar ne loolu ak loolu te saag bi daanaka ay ay papier ñoo ci nekkoon. phénomène bi wéy di law daal di tiital ñu bëri jamono ji tax na ba ñuy ñaax autorité yi ñu yokk sécurité bi. ñun dañu waaru sax surtout ñun ñii di jaay fii dangay jaay man léeg-léeg surtout fan yi damay jaay ba xaaju guddi xam nga dafa sedd damay ragal damay teel a dem. journal bi ma seetaan ma gis un policier di di di di di di di di di di di kàjji un journaliste bu jigéen donc loolu day permettre ku amuloon fit agressé journaliste day naan dina dem agressé ji ko donc loolu loolu dañ ko war a moytu. li ni mel nag li ko mën a jur daal di bari lool ndax ku nekk de daldi bokkoo lim yor tax na ba yenn dëkkuwaay yi ñu war ko ceytuwaat ngir rek li ni mel mën fee jóge